Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatu mbokk di leen ziar di si bés bi nga xam ne mooy el Kabir muy bésu tabaski di baalu ñëpp àq ndaxte tooñ dafa sew man mi di wax ak yéen mun naa leen tooñ man képp ku ma tooñ rek jégal naa la si kàddu ak si jëf ak si lépp jégal naa ñëpp waaye man mi nga xam ne itam maay jokkoo ak yéen parfois nit woo ma téléphone du ma jot loolu àq la parfois itam ma jëflante ak nit sax. Euh, du am lu ko neex loolu ak la parfois itam ma def loo xam ne nit ki euh, metti na ko te du ma xam ndax metti na ko ndax comme ni ma leen wax sànq rek tooñ ak façon euh, yi ya nga mën a gaañee doomi aadama wala yi ya nga mën a sa morom dafa bari si ay àq kon nag maa ngi leen di baaloo àq si bis bi di jégalu ñëpp di jéggal ñëpp di ñaan yàlla may ñu gudd fan ak wér yàlla jéggal suñu bakkaar yàlla faj suñu aajo yi bépp jafe-jafe boo xam ne tey moo tax sax ñun ñi ñuy joxe ay vidéo di joxe ay secret pour ngeen koy jëfandikoo di ko def yàlla moom nga xam ne lu am rek si moom la soob moom la neex yal na yàlla faj aajo yi rataxal diggante yi jubalee nit ñi yàlla tàpp suñu xol yi def ñu ay dëgg-dëgg jullit def ñu ay dëgg-dëgg yàlla def suñu xol yi imaan ak ngëm yàlla yëkkati ñi nga xam ne ñu ngi feebar ñi nga xam ne ñu ngi si ay jafe-jafe ñu génn si ñu ñàkk yàlla may leen ñu am itam yàlla gën a yokk seen am-am ba ñoom itam ñu mën a dimbale ñi nga xamante ni euh, seen ay mbokk leen wala seen ay am di jàmm leen kon yàlla yàlla dafa ñu jàmm yàlla dafa ñu lu gën si ñun bi jaay muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu koy teewe ay ati ati at yu bari si tawfiq si taysir si jub si barke si si wér ak si jàmm ak salaam ak si diine si barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon jërë ngeen jëf maa leen baalo àq bu baax a baax a baax ku nekk maa lay fekk fi nga toog ma sukk sa kanam jox la loxo baalo la àq ndaxte àq dafa sew kon maa leen baalu yi ñëpp leen baal yéen yàlla dafa ñu toofeex dafa ñu taysiir dafa ñu jàmm dafa ñu salaam euh, maanaam daal yàlla daal euh, aar ñu aaral ñu boppam sàmm ñu boppam jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.